salaamaaleykum sama gars yi yii de ay quarante la ak ay permis maanaam daanaka bëri na fi presque ay deux cent pièces la fii de la oto mbalit ñëw sànni ko fii nii xamuñu nag ñan ñoo ko moom te gis nañ ci ay quarante yu bees te bu ñu sañoon ñi moom quarante yi jot ci seen quarante yi sincèrement bu fekkee xam ngeen koo xamante ne day liggéey daaf mën ngeen ñu booleek moom au moins pour ñu mën a fexe ñii moom carte yi ñu récupérer seen ay carte d'identité parce que yii nii gis nañ ni yu bees yi la daanaka fii am na yu màgget côté bii mais yii yu bees yi la ba pare bëgguñu tamit mu tombe si ñi nga xamante ne mooy ñii di dugal seen numéro di arnaquer nit yi di ar di enregistrer seen puce si carte d'identité jàmbur ba lor doomu jàmbur moo tax waaw ñoo ngi leen di ñaan nag s'il vous plaît ngeen partager ko ñëpp gis ci kat